Ibu, ça va? Watchinga? Hein? Jules, qui est Ibu, c'est mon cousin Abi? Ibu, qui est Jules, c'est mon copain? Je suis ravissante. Merci. Hum. waaw wax ma loolu. Mhm. tey nga bëgg ma togg ko. Mhm. loolu def baax na bàyyi naa ko sa loxo. Mhm. kon baax na. waa eh? Pa ani Ibu xanaa day fanaan tey. Ibu moom Ibu ñëw la wàcc mu ngi ci néegam gisuloo ko. Ibu wàcc na. waaw. Oh. te nuyoowul. nag loolu jaaxal na ma parce que Ibu ni ma rombee fii yaakaar naa ne am na lu ko dal tá bom? Ah, oui. Ah, legal. Não. sais que dama la bëgg je pourrais pas vivre sans toi. Et de, je t'aime encore plus malheureusement. Mm-hmm. te loo ma bëgg benn rek bëgg naa la ko ñaar waaw bébé dis-moi sànq Ibou sama cousin bi ni mu réagir ci bunt bi j'espère que ni ça te ça t'a pas gêné. non t'inquiète pour ça. t'es sûr juste que dit, est-ce que noble? <laughs> Noble? non. ah bien sûr Le non. on dit souvent que les cousins sont faits pour les cousines. Mhm. donc c'est possible. règle bogus la fameuse section bii la bokk gis nga c'est mon mhm. cousin ça ma xarit là sam papa ci depuis donc on a grandi ensemble. Tu Je que je may là parce que ma là. Oui, ouais vous avez l'air trop proche ouais on est proche nous, ñoo ñun ñaan ñoo et des fois même ñoo doon beaucoup ban école mais nous, hmm. hmm. tu es ma princesse et je vais prendre soin de toi ah ouais mhm. hmm, c'est chaud <laughs> entrez. Ibu Ibu lan la lan moo xew danga feebar Filo Rocky kan la àndal Jules copain am danga xam Filo j'aime Rocky Oui je l'aime Et je ne mënatuma pas garder il fallait que je le quoi. et c'est plus fort que moi. mais attends pendant tout ce temps je n'ai ci kër que je wax Rocky Tu ko bug. mais qu'est-ce que tu comptes faire maintenant. bon ne sais rien Je ne sais pas..! man Rocky xam naa ni bëggul faram bi bëgg yooyu léegi xam nga nu ñuy def dangay dem nga waxtaan ak moom nga wax ko say sentiment waaw baax na mais bul ko wax dara man dinaa ko waxal sama bopp <laughs> yoo xam nga ni man waxuma ko dara moo gën nekk nga nekk fii naan dangay jooy di def sa yëfu bébé yi waxuma loolu jugos nga jàppale ba ma ñëw togg togg まで ñëw moo tax reero non dama suur rek. d'accord. dis-moi papa. papa tëdd na. Hmm. daf la xaar ba sonn pour ñu reer. oui frère Nakamu. en fait boy c'est mon passeport Il faut expirer. de waaw demee léegi yow comme ça nga gamme lu mot ok on fait comme ça donc allez à demain Inch'Allah. Et vous Et beau Et vous Et beau Et Et Ibu? Ibu? Ibu? xam naa dafa nelaw damay bàyyi ba suba incha allah. waaw waxal ak moom. Salif Fra ji bien sax. Hmm. d'accord incha allah. Rocky, comment tu vas Ça va. Loliola Koralak. Ah bon Pourquoi mm. Ibu. Ibu, t'as été direct. Tu as changé. En plus, tu es trop distant. Le où Bah, du dara. Puis que ni euh, liguey bi dafa xaw bari fan En plus lolu moma xaw perturbé. mais t'inquiète pas. Ibu dinaa inquiété kay démb filoo di wax comme si dafa am lu xew te démb ñëw naa fekk la ngay nelaw. filo moom bàyyi ko rek c'est-à-dire moom dafa mën tooñ. moom dafa dof sax laay wax mooy sama laka, hmm. hmm. waaw wax nga dëgg de moom Philo moom affaire dof rek moo ko neex <laughs> mais xam nga lan laa bëgg nga xam dama bëgg sama ibu bu avant. Hmm? Rocky est-ce que tu es ma cousine te Ibou mi? Je donne si Ibou taille, mooy ce si Ibou suba. kon baax na d'accord. <laughs> à toute..! à Bonjour tonton. Bonjour Et vous, ça va. ça va cette matinée. Bah, ça va bien je me porte à merveille. merci. bah tonton. Là, je suis obligé d'y aller parce que j'ai une réunion qui m'attend. Je tax comme naa du ma mën xaar là tu peux le plus tôt hein, hein. Euh, Rocky daal di jóg toppatoo ndékki bi ah. mais c'est pas grave quoi comme que gars yi ñu may de d'ici 10 minutes je war faire une réunion d'accord allez bonne journée tonton. allez passe une bonne journée. merci allez à tout à l'heure. yoonu ñu ndekki xaamare moo ibi dem na comme que da nga rek ay papa tey woo ko sax daa am réunion moo tax waa d'accord papa euh, Jules nee na dina fi ñëw ah oui d'accord maa ngi koy séntu d'accord waa kaa ñu ndekki Thierno. d'accord oui ça va. am naa la. voilà. naka suba si. ça va tranquille. yaa ngi am jàmm. oui je vais bien. alhamdulilah. Fane ni nga defati. gis naa la mais uy ma heure bii lan moo xewati. booy comme ni ma la ko waxee rek yow xam nga ne man du ma yàgg fenn dafa am lu ma nekk di lijjanti bu sottee damay dellu. te su may dem fa mu yóbbaale soxna si du sama passeport Jules bi dama ko war a renouveler te yow rek yaa yow la yaa ci yaakaar. bon ku fa xamoon nekkatu fa mais euh, t'inquiète naa xoo moom peut-être ma am ku ma booleel. booy loolu ci jàpp rek ma jël. ah da nga fàtte léegi yàgg naa la lijjanti lu gën a garaaw lii. si moo tax mu wóor la man xam naa la. mais xoolal jàpp ci. parce que je ne fi pas te boobu ko fee bàyyi foog mais je da nga sérieusement. je sais que nag du yow du nga gëm quoi. évidemment du ma pourtant je suis fou amoureux booy boobu ni ko dafa je peux même pas l'expliquer. donc toogaay kon amul man déjà dama am si business yi ma nekk su ma génnee dinaa oo bro bi ma am nu ma def ak moom lijjanti la vite fait.

baru c'est une relation bi bëgg serius Hmm. Fof nga toll. Jilo deh dina la bet Ki yow sax da nga am fit. Ci la. yaa ngi fàttaliku bay Maodo Sarr mu bang? ca koñ ba <laughs> xam rek la gaaw waaw maa ngi koy papa de mau ko gën mami gaaw waaw mais su ma taqee rek yow tamit du lu nga ma ñaanal yow tam waaw lola la doon ñaanal mais tamit booy sëyi na nga dem nga nekk ak koo xamante ni moom bëgg na la nga xam ni yow bëgg na la. bi yoon dina baax incha waaw yàlla baax na. yow dimbali ma man kenn xamul xale nga kenn xamul mag nga kenn xamul loolu. duma xale de waaye magoo ma ndax maa ngi gis loo xamante ni yow nangu woo koo gis. tokki day nelaw boppam moy metti mais waxon na bo ñe ma yee ah non non t'inquiète bàyyi ko mo nopolu day sax man paa bi moom fi ndi won wona ko nee mu ngi ñëw en fait Raki mi ngi ma doon wax yow Espagne nga dëkkoon ouais Espagne là, neko. ah d'ailleurs Barcelone xam nañu ah doon et nous pourtant am fa ay mbokk

merci bien alhamdulilah waa man maa la woolu woon pour ñu waxtaan tuuti ndax euh, rek mii ngay seet may baayam waaye it may ndayam ndax xale yi ngay gis

xale yi am nañu yar am nañ teggin nangu nañu jàng am nañu diine te it dara feesul seen bët gis nga qualité yooyu nekk ci ñoom man maa leen ko inculqué ndax seen waajur bu jigéen dafa teel a dëddu donc j'avais pris un engagement que cette progéniture bi ma yàlla jox j'en ferai une qualité Te jii aw ma dara le ma ci rëccu xale yi gis j'ai une très grande fierté de les avoir comme enfants oui parce que yem nañ fu ma leen yemloo doo leen gis ci dans cette maison tu ne verras jamais de servante oui

ba école mon devoir le plus absolu parce que je sais ce que je représente dans ce pays oui je sais ce que je représente dans ce pays de par sa famille Et mes fonctions administratives dans ce pays nous euh, où nous sommes je tax bu ma nit ma fréquenter mon cœur, de fréquenter ma jawar il est de mon devoir de l'appeler pour lui demander lan moo doon sa yéene ci moom waxtaan naa ak moom wax na ma nee na yow nag il fallait que ma woo la nga toog wax ma de vive voix lan mooy sa intention ak ban yéene nga am ci moom. jërëjëf papa dégg naa kàddu yi. te vraiment amna solo lol euh may djegul nak ndax waruma mon xaar sax nga may wol ndax ma ma waron jël sama tank ñe bo fi ma ngi ci djegul bu wér kii di roki nak di sa dom vraiment man mom dañuy bëggante mu nekk nit ku baax nit ku am yar nit ku am diine ba taxna suma sañam dang ma koy may mu doon suma soxna tànk yooyu daal moom moo fi indi. <laughs> alhamdulilah rabbil alamin dégg naa la te kàddu yi rafet na waaye nag comme ni ko waxee lu baax ku am yéene def wala nga def danga ciy gaaw balaa seytaane di ci laxasu kon nag li la war mooy. bu joge ba waxtan ak say waajur ngeen djublu si ba len fi ñuy ah mën na ci djublu bala semaine bi di daanu ndaxte lu gaaw comme ni la koy léegi rek ku koy def dang ci gaaw du deug c'est ça. d'accord dégg na li nga wax de toute façon man suma yegge keur ga dina ci waxtan ak sumay kilifa après lu ci mënta rek man dina la wax. bu neexee sun borom d'accord ma lay déglu. waaw maa ñëw yegg kër ga. amul benn problème jërëjëf Ndiaye. merci beaucoup boo demee nga nuyu ma njaboot gi yëpp. incha allah merci allez au plaisir.